tey kon nous ñooy def waa la lèche Tony Blair est ñëw na fi je voudrais vraiment voir le visage de Ousmane Sonko Voilà quoi qu'est-ce qu'il pense. j'aimerais bien être Ben Souri. taw ak di comment il. mais quand même Diomaye c'est pas Sonko. mais ah ah. ah eh, eh. non fu ma ko bëgg a. yeyeyeye fu ma ko bëgg a waxee. léegi fu ma ko fu ma bëgg a waxee ce n'est pas Ousmane Sonko qui a reçu. qui a reçu Tony Blair ah, mais c'est c'est le président. Ah, Bassirou Diomaye dégg ngeen wax Aminata nee Aminata Baan doomi Ndoye Baan. nee na ce n'est a ah, war wax ne c'est pas Ousmane Sonko mais da nga ne <laughs> Amina rafetal ma déggaat. dama ne Diomaye du Sonko <laughs> voilà loolu laa wax Diomaye du Sonko mais quand ki toog démb ak ak Tony Blair du du du loo bëgg ma la. <laughs> <laughs> non attendez attendez ki toog démb la non <laughs> ki toog démb ki Anthony <laughs> Blair nee na du Diomaye du Sonko Qui toog qui toog dem ak ak Tony Belair quand même ce n'est pas Ousmane Sonko parce que musuñu dégg. oh là là musuñu Diomaye Basirou c'est l'élément de Ousmane Sonko mais quand même Bassirou c'est le c'est l'élément de Ousmane Sonko. mais musuñu dégg parce que on a un président auprès euh, du premier ministre quand même dama la non du tout dama quand la y a problème bu nekkee on a un premier ministre boo il ne savait pas faire la part des choses quand il était opposant Quand on a un problème avec Ousmane Sonko motax il est-ce que bientôt se séparer de Diomaye parce que Diomaye day le Sénégal est ligué, il est international il parle à l'international. que ce soit européenne que ce soit africaine que ce soit asiatique. voilà motax y uh-huh. est-ce que différence entre Ousmane Sonko opposant Ousmane Sonko il est le premier ministre du Sénégal. Il n'y la oh, y a pas y a pas Ousmane Sonko ben Ousmane Sonko il faut savoir raison garder et savoir c'est quoi l'État. Ousmane Sonko n'a jamais su c'était quoi l'état et jusqu'à présent il ne le sait pas chemise biñ ko jox dafa ëpp ci mbaggam wala costume pour mener nek PM dafa wara a jox keneen xam ga ne jarul day il va faire face avec Diomaye parce que n'ak Diomaye n'ak bu deug joté n'ak on est à deux mois mais n'ak nit ñi dinañ ko wax ak eh, stop arrête tu es le président de la République Ousmane Sonko n'est pas le président de la République il faut qu'on soit sérieux yëg na ne Tony Blair da fi ñëw moo la ko gën a xam nga jëloon ñëpp ah, def leen odo non non ñëpp xas ñëpp saaga ñëpp xam nga Ousmane Sonko bu nekkoon xasam ak saagee da ko yemale woon bi mi nekk opposition da ko yemale woon ci Sénégal kese mais daf ko jàllale ba ci international bi bàyyi woo kenn nga nekk dee ñu lay bind rek ngay lire di sana bindal musiba pour Sénégalais mën la yóbbu fi nga nekk tey mi ngi nii tey yóbbu nañ la tu n'es même pas foutu de faire ce que tu dois faire loolu di defante di xool koy tëje koy tijjee koy génne ko dul génne. arrêtons waay mais mais aussi faudra mentionner que nekkul woon man loolu damay bëgg muy leer parce que nekkul woon Bassirou Diomaye fay moom moo daan toog di di di ŋàññi ñi nga xam ne ñooy l'international. mais il était toujours présent nekkul nekkul Bassirou Diomaye moo daan génn di def ay vidéo nekkul en fait euh, c'était Ousmane Sonko mais euh, c'est quelqu'un il a amené la guerre au Kosovo en Irak en Libye via son cabinet de conseil euh, stratégique Nous n'oublions pas n'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre en Irak ça ça s'est sorti de la bouche de Ousmane Sonko les vidéos sont là Allez, quoi, koo xam ne moom dafa indi ab guerre cib dëkk kon lu nga koy recevoir. encore une fois de plus ce n'est pas Ousmane. pare di di di jaay ma ne mais c'est Diomaye wax nga ko nee nga Diomaye du Sonko Sonko du Diomaye euh, bon puisque tu le dis euh, je suis euh, je te laisse. <laughs> non mais tu le dis man je je suis d'accord avec toi. parce que ça va bientôt. man man man la contre en fait Varbe la la la contre parce que moi nga la montre tax ma contre varbe. D'où du Ousmane Sonko moi recevoir Tony Blair.

opposition bi ak ñoo am ñaan yàllaa xam li tax falul Amadou Ba Amadou Ba moo barkeel Amadou Ba am ñaan Amadou Ba am liggéeyu ndey. non yaa am li Macky Sall ñaan <laughs> ndax opposition boo xam ne doo xeex doo xuloo doo taal doo def dara da ngay toog de <laughs> ndax Sonko dañ rek mu dem effacé ji euh, Facebook bi xam nga bu nekkoon jub bu nekkoon ci li muy dox jub la.

bis boo leen bis boo leen vaaree le président Diomaye quand même laa dinañ mën waaye yow Diomaye kat la mu waxoon moom benn wax la def naa wax benn wax ju rëy la waxoon ne nañu nañu dañu dañu Macky Sall leen yónni pour ñu daggate Ousmane Sonko toog ko jox ko Macky mu lekk ko wax ju rëy jooju rek la fi waxoon looloo ko dab ba tey moom it nga ko dab ba tey bi mu naan non xamul Adji Sarr xamu ko mais xamul Adji Sarr xamu ko <laughs>